waaw euh, euh, nee nañu ci wolof ndox du bàyyi yoonam waaw ndox du bàyyi yoonam ah, il faut toujours les mêmes choses di ko naxee itam le peuple 350 milliards ci économie dëkk dégg nga dafa mel ni nga ne euh, trois francs ci un milliard waaw amul sens daanaka lu tuuti la léegi nee na jeunes yi je vais régler résoudre vos problèmes d'emploi avec milliards mm-hmm. waaw sànq maa ngi la fi wax ma ne la mm-hmm. euh, suñu population active. Mm-hmm. bu dee six milliards. Mm-hmm. bu dee six millions de personnes. dégg nga trois cent cinquante mille personnes rek ciy liggéey. kon au moins on a cinq millions. de chômeurs yoo xam ne ñu ngi toog di xaar. trois cent milliards qu'est-ce que ça veut dire. bu fekkee da ngay def ay simulation économique. ça trois cent sociétés yoo xam ne bu ci nekk un milliard la am capital dégg nga wala six cent sociétés yoo xam ne bu ci nekk cinq cent millions la am capital euh, ku ci nekk mën a employé jusqu'à peut-être cinquante personnes alors on est autour de trente mille emplois c'est une goutte d'eau dans la mer ça ne résout le problème mais nag kii politique yi ñu si organisé wàllum employabilité jeunesse benn la beneen aberration bi mooy ces trois cent milliards mënoon nañu constitué comme un fonds de garantie dégg nga mm-hmm. destiné euh, aux petites et moyennes entreprises mm-hmm. dégg nga avec benn cahier de charge mm-hmm. euh, vous embauchez des personnes ñu defar ay mise à niveau di leen dimbali ngeen créer ay emplois pérennes beneen bi c'est le suicide collectif ces jeunes là. Mhm. Euh, dañoo mën a yore société. Mhm. pour la plupart est-ce que du nekk benn pàccoo sax. mais séddale lay doon. Mhm. Ah. waaw séddale la. il se retrouve avec parce que yàgg ay programmes yoo xam ne. il se retrouve biir ay pour caser yenn clientèle. mais il se retrouve ils retrouver avec deux millions trois millions ñi un million et cetera. six mois après ñu dellu à zéro. sa veut dire que l'argent n'a servi à rien du tout. c'est-à-dire que euh, ñun dañoo yàgg caaxaanee dara. xam nga bu ñu demee ba nga xam ne euh, dix mille milliards moo mën a résoudre le problème de l'emploi au Sénégal mm-hmm. ah c'est parce que régime bu fi ñëw da nga ko caaxaanee ba dem. mu yokk rek. Mhm. avec une euh, euh, euh, nu mu tudd un accroissement exponentiel. de la population. Mhm. mu yokk di yokk di yokk c' une bombe dégg nga qui va exploser tôt ou tard. Mhm. pourtant créer deux millions d' emplois deux millions cinq cent mille emplois. dégg nga créer de la valeur dégg nga ak richesse fii Sénégal. c' est très faisable. soo toppee chaine de valeur yi nga xam ne moom la ñu am. agriculture en agriculture mhm. nga xam ne de la création de semence wala sax l'exorde de l'eau mhm. ah régler problème irrigation mhm. dégg nga récupérer et cetera euh, fan la ñuy amee ndox dégg nga les bassins de rétention mm-hmm. pourquoi ne pas penser à des lu ne mm-hmm. lépp loo xam ne mën na indi dox créer réglé sa problème là mm-hmm. dégg nga li ci nekk ci emploi kenn xamul nu mu toll nga ñëw ci création de semences ñëw ci agriculture une agriculture diversifiée dégg nga ñëwati itam ci beneen la transformation de nos matière premières ñun africains ni ñuy def moo gën a ñaaw ci àddina bi dañoo saam suñu yëpp mel ni ku ñu nekk ci luuma. Mhm. c'est tellement on a une on a on a une conception. on a euh, on une conception tellement féodale. Mhm. dégg euh, de l'exercice du pouvoir et de l'économie c'est extraordinaire mhm. da nga saam sa yëpp. par kilo ngay jaay. mais gerte suñu produit la koy gis nañ ay unité de transformation. ci àll beeg yëpp avancé na. non non tu as vu de petites euh, euh, nu mu tudd euh, unité ah hmm. fii ak fële par exemple gerte suñu gerte gi rek ma jox la benn exemple. Hmm. bu ñu ko jëloon yëpp def ko tige dege emballé ko ah jaay yëpp dans la sous-région africain yëpp koy lekk. kon lan la ci chinois di def bay PPC yóbbu. Hmm. c'est la facilité. ci cadre boobu laay wax waaw ñàkk fayda ba nga xam ne mënuñu am plus value ci li nga xam ne moom la ñu moom déjà ni ñuy fixer prix cour cours euh, euh, des matières premières mm-hmm. au niveau mondial mm-hmm. mooy catastrophe bi gën a rëy ci àddina bi mm-hmm. xam nga ne une tonne d'arachide bu bu Amérique produit ah ay 2000 euh, dollars moom mooy la tonne loolu lay jar ah, fii une tonne d'arachide dégg nga ñu naan la ay trois 300000 francs CFA. pourquoi bële gën a cher yi xam nga lan moo ci nekk. Mhm. ah parce que bële ci prix bi y prix de la dignité humaine waaw suñu béykat ñun il doit avoir une voiture. dégg nga mhm. dëkk ci kër gu baax. Mhm. di taal ay climatiseur am. nga di sol bu baax. di lekk di naan am pension de retraite am caisse de sociale. y a tout ça à l'intérieur. D'accord. Il y a il y la dignité il y le prix de la dignité humaine mm-hmm. dégg nga boo xam ne dafa nekk ci biir ñun suñu yëf dara nekku ci c'est brut le président africain dégg nga ah, bu yeboo mu jaay franc le kilo wala à deux cent cinquante francs dégg nga des ci néegu la xam di lekk di naan non il faut que ñu xool ñi xam ne noonu la ñuy réfléchir c'est transformable mën nañ ko transformer beneen problème nee nañu le soixante pour cent de tout ce qu'on 70 mm-hmm. pour cent. vu ces études de la FA. 70 mm-hmm. pour cent de tout ce mm-hmm. waaw day yàqu. faute de chaine de conservation. loolu sax mënuñu ko. c'est un problème sérieux. c'est un problème sérieux beneen problème de ressources humaines waaw wuñu kenn amul école amul dara. ñetteel bi la corruption. corruption boo xam ne kenn xamul lu mu toll. ay dimension extraordinaire mooy corruption bi nga xam ne moo fi nekk banque mondiale ak FMI ñoom ñooy wax de ne cinquante pour cent de l'aide qu'on octroie aux pays sous-développés dañ koy détourner déposer ko dans des comptes offshore mais xanaa lii moo jara tax lii moo war a tax nit ñi euh, mën a génn taxaw ci mbedd mi ne dootuñu duggaat ah même loolu aide buy jógee étranger ñu détourner ko di ko jugal ci ay comptes waaw beneen bi beneen bi mooy gis nga ultralibéralisme le libéralisme sauvage à l'état primitif amul Europe fii la am fii la am ci yëpp nag waaw ba booy seet salaire yi ah ni nit ñuy dundee dañ la ne Sénégal dëkk yu mel ni Sénégal cinq cinq pour cent des travailleurs se partage cinquante pour cent de la masse salariale africain dafa gàtt xel te soxor boole ci waaw non non parce que xel parce que xel parce que xel xaju ci alors alors boo koy symboliser ci benn entreprise mooy que le directeur général touche deux cent deux millions cinq cent mille gardien bi di fayu cinquante mille mhm. waaw ce qui est interdit dans des pays comme Japon mhm. comme le Japon nga xam ne dañ la naan le directeur général ne pas toucher plus de treize fois mhm. dégg nga que celui qui a kon bu amee un million nga am cent mill mhm. un million trois cent mille nga am cent mille mhm. su bëggee yokk da nga yokk mhm. da ngeen di àndandoo toujours parce qu'il faut respecter et cetera yooyu yëpp mu ngi ci beneen bi il faut le dire dégg nga ah, ñàkk xam-xam moo ñu indi lii yëpp ñàkk xam-xam moo ñu indi lii fii amul xam-xam amu fii plus de 60 pour cent de la population sénégalaise ay analphabète lañu moo tax boo tuddee trois cent milliards ñëpp tëb mm-hmm. trois cent milliards fi mu ne wan naa la ko léegi ci une petite démonstration wan ne ne c'est c'est absolument rien du tout c'est une goutte d'eau dans la mer mm-hmm. léegi nag beneen scandale bi mm-hmm. mooy loge ko à la présidence on retombe encore dans les travers dégg nga yi fi nekk indépendance à nos jours ah lu muy def présidence dégg nga que c'est nous allons piloter ça nga xam ne liggéeyuñu parce que un président dégg nga qui travaille sérieusement pour le développement de son pays talul toppatoo trois cent milliards waaw mais itam d'une notre euh, euh, euh, part il a un peu parce que foofu lañ toll avec cette corruption endémique Ablaye Wade taxaw na fii wax ci plan Gowana mais j'ai décaissé quatre cent quarante milliards qui ont été captés par des intermédiaires dégg mosul yegg ci ci euh, agriculture yi véritablement mm-hmm. loo xam ne bu fekkoon dans un pays européen mm-hmm. ci saa si le président bi wàcc mm-hmm. waaw ñu lekk dootuñu naan ba mu abal leen waaw fii ça passe waaw combien de fonds ont été décaissés depuis ñu koy dégg tous les jours li muy bëgg a def nii ba mu créer FONGIP FONGIP lii moo waroon doon liggéey yëpp ba nga xam ne kenn waxatu ci et cetera alors je te dis coow laa ngi ci suñu kanam dans un an nga dégg ñii di yuuxu fii ñii di yuuxu fële mm-hmm. et je pense que puisque c'est <laughs> c'est fële la nekk présidence mm-hmm. militant Pastef en tout cas duñ fa dem mm-hmm. waaw ñoom ils sont exclus d'office <laughs> d'accord loolu leer ñuy jaajëfal suñu mbokk yi ñuy seetaan ci